vraiment euh, d'après les échos yu ñu am vraiment xale yi nos élèves ils nous ont vraiment euh, que vraiment li ñu fi jàng bare na te le climat était vraiment propice à la formation te vraiment ils ont découvert beaucoup de choses tout d'abord je vais passer pour le français si vous voulez on communique en français wax wolof man séeréer laa boo xaw a donc il est clair que GIZ vraiment félicitations vraiment c'est programme surtout le programme réussi au Sénégal et la coopération allemande comme Madame Sissoko le disait tout à l'heure c'est une coopération très dynamique c'est comme l'USAID Espagne et vraiment les fonds français. Donc, euh, tout, euh, le intervenant, les Allemands, vraiment, leur coopération est directe et ils appuient beaucoup la jeunesse. Et c'est les gens qui financent aussi bien la formation professionnelle que l'enseignement technique. Parce que dans les techniques, ils sont très, euh, de, comme Don Bosco, accent de formation moderne. Donc, l'aspect enseignement technique, ñoom aussi ils appuient beaucoup parce qu'ils aiment beaucoup l'énergie solaire électricité pour ñuy defi Maintenant, euh, ce, ce qu'on qu dirait ici, je passe sur les mots clés, parce qu'on ne peut pas retenir la parole. Donc, euh, euh, vraiment, la formation, nous on s'est dit, nous, nous pour cette euh, école en place, avec M. Loy, qu'il faut féliciter. Et je démarrerai par là. vous, vous faites anglais. qui peut dire self-made man Self-made man Or oh, self-made woman self-made man or self-made woman. Elles font anglais, donc, c'est quelqu'un qui a pu se construire lui-même. Et l'exemple de M. Noé, comme le disait M. Penn et M. Sissoko, c'est un exemple patent et latent. Moi, vivre, vous le vivez. M. Noé, s'il vous plaît, M. Noé est parti doon tailleur ci atelier benn machine et aujourd'hui monsieur Ndoye est chef d'entreprise déclarant responsable d'un établissement de formation professionnelle où vous êtes c'est ça un self-made man il s'est construit lui-même monsieur Alsansi votre surveillant général euh, monsieur Pène le disait tout à l'heure fonctionnaire à la retraite comme moi-même et pourtant qui est là encore à se réveiller à 8 heures à être à l'école et il faut le féliciter pour ça, honnêtement. C'est ce que disait M. Penn, le réinvestissement. Après la retraite, il pouvait prendre son, son mais il n'a pas fait. Il est là encore avec nous et il a le niveau. Et je sais qu'il a le niveau. Et je félicite beaucoup l'administration du CRPLN parce que M. Ndoye a su s'entourer de bonnes ressources humaines. Merci. Madame Colli avant vous, qui est l'administratrice, la directrice. Euh, il y a aussi euh, Madame Cissé, qui a démarré avec nous l'année dernière, euh, secrétaire comptable, vous parlez de comptabilité, elle maîtrise bien ça. Il y a aussi M. Al-Santi, je l'ai dit, Madame Mademoiselle Fatsa, notre assistante administrative, assistante en tout, administrative, pédagogique, machallah. Machallah, vraiment. Elle, elle monte, et vraiment, elle a le niveau. Parce que les licenciés croient en astana de gestion. Il y a aussi euh, euh, euh, l'autre, comment dirais-je Ah, moi-même, ouais, j'arrive. <laughs> Et vraiment, nous félicitons aussi nos techniciens de surface de danger, la sécurité, toute l'école, tout ce qui est en place a l'école. Je vous dis que l'école est la quatrième structure, peut-être je le dis pour nos partenaires du GIZ, l'école est la quatrième structure du complexe Les Boudoyes. Donc voilà un seul Foudoy Ben. Bafou, Bafou Ben qui m'a pris 10 stagiaires récemment. Bafou Ben, son collègue, un peu un self-made man aussi, un peu le même cursus quoi. humain, scolaire, comme vous le disiez, c'est des compétences de vie, c'est des gens qui sont battus. Et donc, Bafoumeng me nous prend à l'école 10 stagiaires en habillement, et ça, je vous le rappelle, pour vous qui êtes là, il nous promet même de les engager. Le, cas Bafou, le cas Bafou nous instruit tout de suite au retour dans les concepts euh, qui ont été, qui à la mise en place de l'établissement. Le, concept, la, le contexte et la justification. Mais euh, l'IA nous a félicité parce qu'il nous a dit, vous, au moins, vous avez mis le contexte qu'il fallait. Et maintenant, euh, c'était quoi le problème du CFPLN C'est justement l'insertion. Les gens, ici, on prend des écoles, Amna BTS, Mangi, LP, licence professionnelle, CAP, BP, bp mais après, Mais, mais c'est informé qu'on met dans la rue. C'est pas bon. L'insertion. C'est pour ça, dès le départ, quand avec M. on a réfléchi et les autres au niveau du truc, nos conseillers, on s'est dit on fait un PFI. Vous savez ce que c'est qu'un PFI Les élèves Programme de formation insertion. Et, et, et toi, FP2, euh, Concept école entreprise, ça on l'a dit. On a dit, nous, concept école entreprise essayer de, de, de, de régler, de, contribuer à la lutte, on ne peut pas régler nous, mais contribuer à la lutte du non-emploi et du sous-emploi. Parce que non-emploi, beaucoup de sous-emploi. Sous-emploi, moi, je forme là-bas pareil. Tu es à mon N'est pas chômeur celui qui n'a pas reçu de formation, c'est un non-employé. C'est différent. Non-emploi et sous-emploi. déficit de déficit d'emploi formation kooku mooy na formation am na diplôme mais sous-emploi déficit donc la la dernière chose qui a été à l'origine de la création de cet établissement c'était lutter contre l'immigration clandestine ça on l'a dit et donc aujourd'hui aujourd'hui concept yu ñu am dans la pédagogie bu ñuy def nous on a choisi la l'APC et vous verrez au Sénégal on va éliminer PPO pédagogie par les objectifs on a allé vers la l'APC comme il a dit c'est le milieu de l'entreprise euh, et vous savez la clé de répartition c'est dans la formation professionnelle et l'enseignement technique aujourd'hui après le séminaire de Sali en 2000 les inspecteurs méthodologues spécialistes ils ont dit sur instruction du département de tutelle, le ministère de l'emploi, ils ont dit de pratique, de théorie. Voilà. nit ki da loxo nga mën liggéey bi de jours. rémunéré la jox la transport jox la xam-xam jox la attestation ba pare di la suivre ba pare gestu sa école may leen matériel boo xam ne bi ñu liggéey problème matériel lañ moo matériel baa ngi nii GIZ may nañu matériel donc loolu dañ la di remercier bu baax a baax a baax ci loolu donc di kontaan ci regroupement des terres de la région de Thiès aussi ñu ngi fii donc le président moom sax ñu koy remercier parce que ñoom aussi tamit euh, bon bu ñu nee terre Thiès donc dañu am benn regroupement boo xam ne bon xam naa après di ngeen am contact ak ñoom pour jëm waxtaan ñoom sérieusement parle dañu leen apprécier si li ngeen def nii parce que saa bu ñu paree séminaire euh, du complexe Lébou donc on a choisi les filières restauration et habillement pour euh, euh, les former en soft skills et également après les insérer dans les entreprises qui sont dans la dans la place dans la région de Thiès notamment dans le secteur de l'habillement et la restauration donc euh, on a eu cinq jours de formation. Aujourd'hui, on procède à la remise des attestations, mais également à la remise des appuis euh, destinés à l'école. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas du tout évident, euh, euh, surtout après la Covid, pour que les écoles puissent s'en sortir. Donc on a dédié, euh, doté de matériel à, au complexe Lebundoy, c'est destiné aux étudiants. Donc et également, on a procédé à la remise des attestations. Donc la suite, c'est après prendre chaque étudiant

sont en première année ou deuxième année. Donc ceux-là vont, bon, bon, ils vont, ils vont faire un stage de C'est ça l'accompagnement. Parce que comme vous le savez, le programme réussi au Sénégal a trois champs d'action. Le premier champ d'action, c'est tout ce qui est insertion. Donc on essaye de former les jeunes et on les insère. C'est un de nos euh, euh, euh champs d'action. Donc le deuxième champ d'action, c'est tout ce qui est entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est appuyer Euh, euh, ces jeunes-là dans le démarrage de leur activité génératrice de revenus. Et pour ça, on a appuyé l'école. Non seulement ils vont prendre certains jeunes, mais également ça va permettre euh, de, de, de développer de développer tout ce qui est entrepreneurship pour eux. Le troisième champ d'action, c'est tout ce qui est perspective, communication et perspective Donc, euh, c'est ce qui nous avait réunis tout à l'heure. On a fait un dialogue sur tout ce qui est insertion. Et euh, voilà. donc, euh, waaw forum bi forum bi mi ngi tudd forum de l'insertion forum bi def nañ ko ci cinq jours ci cinq jours yi am na formation après formation bi jox nañ leen diplôme après diplôme yi nag. dañuy jéem dugal leen ci ay ay euh, euh, entreprise yu nekk yi nga si biir euh, Thiès nga xam ñoo xam ñi ngi yëngatu ci restauration wala ci ñoo xamante ni yëpp habillement la donc loolu moo ñu moo tax ñu organiser forum bi forum bi aussi waxtaan la waxtaan lan mooy insertion nan la ñu war a mën a comporter wu en entreprise nan la ñu war a aussi ñoom ñi nga xamante ni ñoo leen di insérer nan la lan mooy seen seen seen seen devoir ci xale yi ñu leen jox donc loolu moo ñu indi ñu tënk ko ci semaine forum bi mais du forum bi rek yóbbu xale yi ñu dem ñu am stage am liggéey également dañu jàppale école bi parce que ñëpp xam nañu ne après Covid bi xaw na métti jàppale leen jël nañu matériel jox ko waa école bi pour ñu mën a euh, continuer formation yi mais également permettre xale yi nga xamante ni dañu war a lancer wu ëllëg ci lépp loo xamante ni entrepreneuriat la ñu ñu mën a ñu mën jëfandikoo matériel boobu. voilà ci 80. Fatima waaw. waaw bi nag dañ ko dañu def euh, si choix bi dafa porté si ñi nga xamante ni dañu diplôme ay diplômé lañu ñoom am nañ seen diplôme génn nañu ñu ñoom dañ si choix bi dafa porté wu si ñoom. et ñi nga xamante ni ñu ngi première année deuxième année war a def ay stage donc dañu leen jël ñoom aussi ñu tabb leen si si 80 yooyu nag moo ñu kii leen. voilà. donc comment vos impressions par rapport à cette formation. pour moi, je peux dire que c'est avantageux pour moi parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis et encore, ça m'a donné encore le courage et la volonté d'approfondir hein, ma formation et surtout en couture, vu que euh, beaucoup de personnes pensent que coupe couture c'est une filière qui n'est pas, qui n'est pas, comment dire, euh, qui n'est pas aussi euh, c'est pas comment élargie. voilà élargie donc euh, là avec la formation j'ai appris que voilà coupe couture, c'est une que tu peux vraiment réussir avec j'ai beaucoup de choses et surtout sur le marketing digital aussi, vu que le monde tourne autour de tout ce qui est virtuel. La gestion aussi, parce que tout tourne autour de l'argent, donc pour moi, c'est avantageux. Je remercie aussi la GIZ. D'accord. Ah, formation bi. formation neex na non seulement animation bi alhamdulilah. teg ci ñun damay remercier waa GIZ remercier sama complexe parce que formation bi daf ñoo permettre ñu xam ni que ni maanaam liggéey tailleur du kese du gars yi la plupart dañu yaakaar ni que ni bu ñu nee tailleur laa wala ko couture laay def du liggéey bu noble pour ñoom bureaucratie rek ñoo fi nekk da ngay sa saak dem foofu ngay amee classe alors que liggéey bi liggéey bu noble la ñu ñoo kii bi formation bi tamit permettre nañ ñu xam ni que ni maanaam liggéey bi yow yaay def yaay am sa méthode de faire bi tax ngay mën a euh, euh, approfondir liggéey bi ba won ko ñëpp ni que ni liggéey bu noobul la. d'accord lan ngay wax waa GIZ. di leen di kontaan di encourager di féliciter aussi surtout laay wax parce que lii nii yombul bu ngeen ñëwee ci dëkk ngeen bëgg a jeunes yëpp réussir surtout pour dire que ni toog sa réew réussir sa réew mën naa nekk donc ñoom bu ñu ciy wax ñun dañ ciy gis suñu bopp kontaan nañ trop di remercier lañ ci dañuy. rejoint vraiment notre stratégie et notre option. Parce que nous, on s'est dit que euh, ne peut pas former des enfants les, ou des, jeunes les laisser dans la rue. Et félicitations à GDF. Félicitations. Des remerciements de félicitations au niveau du centre de formation professionnelle Lebundoy. Nous félicitons le personnel administratif, nous félicitons les enseignants, les surveillants, les parents d'élèves, mais surtout nos élèves qui ont cru à ce projet. parce que c'était difficile. Nous avons la chance d'être du début d'une construction ba ñu ko réaliser macha allah ñu ànd ak yéen sans élèves yi projet complexe bi mën woon nekk ce sont les élèves qui ont cru à ce projet su ma nee élèves yi nag dafa am ce qu'on appelle les pionniers ñi nga xamante ne ñoo fi nekk début bi gëm projet bi ànd ak ñun mooy deuxième année yi nga xamante ne war nañu génn. ñoo xamante ne ñoo teg base bi ñoo teg ñooy sookul bi ndax su deuxième année bi amul woon première année bi du am ren kon je vous dis d'applaudir vos charmantes grandes sœurs d'avoir cru à ce projet. D'accord. On va passer directement à l'innovation parce que nous day wax innovation. day wax indi lu bees te lu bees li li ma ci gën a neex mooy distinction l'élève la plus disciplinée ki gën a am teggin ci école bi dafa am ñaar yoo xamante ni mooy base jamono ji muy xam-xam ak teggin xam-xam am na solo loolu wante soo amul teggin doo ko jariñoo dañuy wax ni soo yaroo di nga yor dara soo ñàkkee teggin doo teggi dara kon tey élève bi nga xamante ni moo ëpp teggin nga xamante ni mooy emblème mu jamono ji école bi mooy sunu ambassadrice mu ngi tudd monsieur Sylla dans ce ce n'est rien d'autre que l'affiche que j'ai vue. J'ai vu entrepreneuriat, insertion. Et j'ai demandé à un élève. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de modules qu'on les a inculqués durant ces, jours. Et je me suis dit que l'école CFLN a réussi un défi. qui est corrélé par l'État, que l'État a pris comme ambition dans sa politique de formation et d'insertion. Ce n'est rien d'autre que l'adaptabilité des apprenants. Aujourd'hui, le souci majeur de l'apprenant après son diplôme, ce n'est rien d'autre que comment il va faire pour être adaptable, pour avoir un emploi, ou bien pour créer son entreprise et pouvoir employer d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce séminaire, j'ai vu que on vous a appris le marketing, on vous a appris l'entrepreneuriat, on vous a appris comment, une fois l'obtention de votre diplôme, comment fidéliser vos clients, comment garder les clients potentiels, etc. etc. L'ensemble de ces soft skills que j'ai entendus par le biais d'un de ces personnes qui a subi cette formation me rassure. Et ça, j'en profite pour féliciter l'école CFLN Lebundoy, vraiment, pour la considérable pour cette considérable attention qu'ils ont portée sur l'avenir des apprenants, mais également remercier GIZ pour l'accompagnement durable, incessant qu'ils sont en train de mener au niveau des projets de développement et d'accompagnement des jeunes. En tout cas, j'en félicite tout le monde, remercier également les élèves et remercier Amina Boudiou que je vais appeler Amina Boudiou. Merci beaucoup. Et félicitations à Amin Nabidjouf. Tout naturellement à savoir le, monsieur le surveillant général qui est ici, là, monsieur Si. Monsieur Si, venez, s'il vous plaît. Et tout naturellement, monsieur Sec. Monsieur Sec, s'il vous plaît. s'il vous plaît. <laughs> Bonjour, chers élèves. Je vous aime toutes. Mais je vous aime toutes. Mais, par contre, chapeau à celle-là. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas pour rien qu'elle a été choisie. C'était parce au sérieux et de son mérite. Vraiment, je la remercie énormément. Je te félicite énormément. Merci, merci de la compréhension. Merci, merci Merci énormément. Merci. Merci beaucoup. Seck. maa ngi nuyu waa salle bi yëpp di sant yàlla d'abord ci occasion bi ñu am. fekkee prestation bu am solo bile euh, tout d'abord dañuy euh, remercier waa GIZ sans plus tarder parce que moo ñu may opportunité bu toll nii ñu ñëw am ñoo ak ñoom collaboration pour que xale yi ñu mën leen defal renforcement parce que xale bi bu jàngee ba pare yaakaar naa ne wàccoo nga ak moom boo ko joxee diplôme d'honneur ñu dégloo tuuti boo ko joxee diplôme d'honneur wàccoo nga ak moom. mais boo ko gungee defal ko ay renforcement yaakaar naa ni yaa ngi topp ci ay tànkam di ko gën a gunge pour mu gën a ñeme kon merci à GIZ euh, li ci topp CFPLN euh, gàcce ngalaama lañ leen di wax euh, monsieur Ndoye jërëjëf sa idée rafet na bi ñuy collabore ñun ñaar yaakaar naa ni lii rek nga soxla woon mooy xool ndaw Thiès ndaw Sénégal di leen seen ca kanam nga am chance su jàng métier ci atelier ni man bëgguma apprenti bu ñuy ber muy ubbi atelier mais ay chef d'entreprise laa soxla yaakaar naa ni moom la ñuy xaar ci xale yi kon donc euh, Ndoye jërëjëf sa yéene rafet na euh, li may wax nag ci xale bi tey bëgguma woon wax ah parce que tey dama liggéey si ak RTT donte que ku jekku kàddu laa mën naa wax euh, fii ba suba amul problème mais dama ñëw liggéey si woon jël couverture médiatique bi moo tax ma xawoon a lang tuuti si ginnaaw mais kii dinaa mën wax ci moom tuuti parce que yar dafa am dayoo. ci sunu askan ñun sénégalais lañ ay nit ñu ñuul lañ dañoom ay valeurs yoo xamante ni li koy laytaay ba tax nga koy incarner saa su ne yar kase la nit ki boo ko jàngalee yaroo ko du jariñu nit boo ko yee te yaroo ko du jariñu ndax boo yaroo te yeewuloo alalu borom barke nga bés bu ne dañ lay jariñoo waaye doo mus a jariñ sa bopp même nit ki li mu yor te yaruwul moomu ko dina ko rëcc te dootu ci jotaat. te ku ñàkk yar day def bu demee ci barab tasaare jëmmam fu mu dem tasaare fa jëmmam bés dina jot mu bëgg a dajalewaat boppam fekk jëmmam tasaaroo na moo tax yéen xale yi message bi lu jar a bàyyi xel la. bàyyiwaat leen xel kii ci yaram ak ay tegginam parce que dund nañu ak moom te nee nañ lu ni fàng kenn du ko jeex yaakaar naa ne bu ñu nopp woon yéen élève entre yéen. buñ leen laajee ndax kii yaru na yéen ñëpp waaw ngeen si teg jërëjëf. kon nag bon message bi ma leen di wax jeex na leneen li may wax moom laa koy wax yan bi dis na am euh, Amina bu yan bi dis na parce que buñ la sargalee ci say moroom ni la da ngaa yaru amatoo droit def erreur na nga jekkal sa toogaay góor góorlu ba joxe résultat. te nit ku yaru fu mu dem la mu am moom la fay yóbbu tey am na benn baat bu am solo bu may bëgg a tëjee gis nga ki yaru day représenté waa këram xale bi ni mu mel noonu la ñuy xoolee moom reflet reflet njabootam la parce que dañuy xool ni kii nii la waa këram mel ndax nit du joxe lu mu amul tey nit boo ko poñe woon di ko laaj un milliard amu ko waaye boo xoolee ci ay tegginam bu siggee xool nga gis xarkanam ci kersa bu àddoo nga dégg ci làmmiñam ci sutura buy dox nga gis teey ak ku ñu yar ak ku ñu rangé kon loolu mooy nekk ci moom kon dañuy gis ni nag kii macha allah ay way lii lañ préparé ci moom kon yéen ñi ci des bu leen gàccaal seen way jur bu leen nekk contraire euh, Amina bu ngi nuyu le PDG euh, grand Lébu Ndoy grand laa koy wax donte ne moom fu mu dem wax ni maay président euh, mais moom sama grand la mu nekk ku ma naw di nuyu également ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñëpp di nuyu également sama xarit sama doomu baay Pape Seck Seck ndaanaan ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu euh, ñaari xarañ yële madame Sow ñu ngi koy nuyu baax madame Ngom di waaw ñu ngi koy nuyu moom bu baax di ko ñaanal moom it ménage bu bu neex macha allah bu nekk jàmm nuyu sama xarit mara Maane Diop nga xam ne moom euh, suma xarit la ñu partagé lu bari yàgg na euh, ma dem ba tuddee ko xarañ xarañ loo ñu ngi koy ziar bu baax moom it di ko ñaanal di nuyu élèves yi fi teew yëpp ah c'était juste euh, benn mot rek léegi dama fekk ngeen def lu am solo mooy seppi kenn ci parmi élèves yi nga xam ne ñoo fi nekk wax ne bokk na ci élève yi gën a yaru le professeur wax na ko léegi ku tànn rek wàcc mais comme ni mu waxee ñëpp comprendre parce que bi bi ñu apprécier rek xam nañ ne ñëpp nangul nañ ko ko parce que ñëpp a yaru waaye dafay baax ni mbooloo faw nga ñaax ci kenn pour ñi ci des gën a góorgóorlu loolu dafa am solo parce que ci école yëpp la la la bokk di remercier Lébu Ndoy nag ak complexe Lébu Ndoy parce Euh, li may wax mën naa ko waxee à travers RTT TV nga xam ne média la euh, ñoo ko créé Thiès yëpp nga koy setaan amuñu moyen mais ñu mel ne Lébu Ndoy ñu mel ne Bafu ñeneen ñoo nekk suñu ginnaaw du ñu jàppale Lébu Ndoy a signé un contrat avec RTT TV pendant un an di ñu accompagner di yëkkati ay moyens di ko ci def bu ngeen ñu gisee complexe Lébu Ndoy c'est pas gratuit ñu ñëw fa rek indi suñuy caméra moom dafa am convention bu mu signé ak ñun muy kayit bu ñu xaatim lépp lu complexe bu Ndoy xewle RTT dafay am droit ñëw couvrir ko sans autant moom mu wooñu kon donc loolu pour wan leen ni moom mi ngi yokk visibilité wu école bi waaye mi ngi yokk xar kanam école bi ba pare li ma ci gën a neex encadrement bu am solo gis nga école tur yomb na am na d'autres école yu fi nekkoon ah pour ne pas citer personne mais am na ñeneen ñu fi nekkoon am na ñeneen ñu fi nekkoon moom njëkkewu ko fi bokk na ci école yu mujjee juddu mais moom école de référence la bu ma doon wax école de référence numéro un ci Thiès complexe Lébu Ndoy laa koy jox voilà loolu sañ naa ko wax donte ne ñun yor nañu yor nañu moom xam na li may wax yor nañu centre de formation centre de formation laa yor comme moom di encadrer ay jeunes fii ay élèves plus de cent élèves ñi ñu ngi moom mais encadrement ak organisation teg ko ci yoon. vraiment bu ñu ko gisee aussi du ñu du pour mën ko wax wan leen ni fi ngeen nekk jàpp leen ngeen bàyyi parce que da leen di accompagner encadrer leen suivre leen parce que jàngal nit ki jox ko diplôme këyit rek mu dem toog këram yomb na mais complexe Lébu Ndoye da lay suivre boo génnee te bala ñu ci xam bëgg a xam dara ngeen bàyyi ba seen trois ans jeex ba ngeen génn di ngeen xam ne complexe Lébu Ndoye foofu la gën a mënee mooy accompagnement dana fexe ba ngeen génnee ngeen am fu ngeen nekk loolu moo gën a jafe te yéen a ngi ci. kon ñu ngi leen di encourager ngeen gën a am yar ak discipline parce que jigéen lu xotti war maam dafa yomb surtout ndaw jàng dem ñibbi parce que ku ci génn sa kër sa yaay xelam du dal tànk ñibbisiwul te jigéen dafa am valeur valeur boobu nag sàmm leen ko parce que ñun ay ndaw lañu waaye yàgg nañ ci xam parce que euh, sama classe gi ak ñeneen ñi dañoo gaaw ci ne xelu xale kon ngeen gën ci bàyyi xel. xam li leen tax a jóg xam li leen tax a jóg xam li leen indi complexe Lébu Ndoye bu ko defee bu ngeen ñëwee yàlla mu leen dimbali ngeen réussir am encadrement bu baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm incha allah di wax ni Lébu vraiment kontaan nañu. monsieur Thiam pour la remise de ce diplôme monsieur Thiam.

mais dañ ko dañ ko nangu ak xol bu ubbeeku président Mamadou set jërëjëf parce que day wane suñu taxawaay ci Thiès parce que nekk nañ ci regroupement des tailleurs yor ci ay occupation presque vingt ans wala plus de vingt ans di liggéey di góor góorgóorlu ci cees ci côté média ak ci yu bëree bëree bëri ñu ngi ci taxaw te it ay euh, formateur lañ ci wàllu métier bi nekk ay yarkat aussi Euh, suñu jëmm ju xeebu ji manoon nañ ñu bañ a sargal parce que ñun li ñu yëngatu ay taalibe sëriñ Touba lañ ëllëg rek lañ yaakaar fay mais mais xaaruñu fayu tey ñun ñooy jaamu askan wi danoo fas yéene liggéeyal askan wi pour jariñ leen lii nag xam nga ñan laa ko tuddee mboolem élève bu jàng CFP leen sama njaboot yi toog yéen laa tuddee lii déjee naa leen ko merci ok. lépp dañ ko ubbee heureusement muy teggin loo am xam-xam xam-xam loo am xam-xam te amoo teggin dafay mel ni lu naan euh, rabu àll bu sëf ay téere lu yàgg-yàgg xamul doyo bi daf koy wàcc kon nañu doxaat ci teggin nañu yeesluwaat si je peux m'exprimer ainsi daal di def renaissance ba pare dox ci ce qu'on jàng nañ ba pare dox ci insertion parce que su dee outils jox nañ leen ko wax nañ leen fan la nan la ak naka la c'est à vous de faire des démarches maanaam yéen yéene am benn responsabilité goo xamante ni li naan why not pourquoi pas gëm dina yóbbu doomu aadama foo xamante ni fekk mënu mënu ko xayma ci misaal saa su ne bu vous souvenez saa bu ñu leen jàngal que ça soit même cours informatique dañ leen wax ni doomu aadama fu mu yem moo fa yemale boppam bu leen am limite bu leen am limite bu leen am limite sans pour autant tarder dañuy jublu ci distinction yi nga xamante ni yéen yéen ko moom muy élèves yi xëy na temps bi daf ñu xocc moo tax on va vous ñu commencé ci cinquième bi quatrième bi troisième bi deuxième bi ak tout naturellement première bi suñ leen woowee ngeen ñëw fii devant seen kanam seen kanamu xarit seen kanamu famille parce que CFP la nag encore une fois li ñu prôné moom une famille à chaque fois dama leen wax ni de ce fekk ñu bokk uniforme bi rek c'est la famille euh, vie de famille lan am en quelque sorte kon loolu moom mooy la particularité au niveau de CFPLN sans pour autant tarder on va appeler au niveau de la section coupe couture comme information aussi CFPLN ñaari section la li naan coupe et ak restauration hôtellerie mais en même temps il y a des matières yi nga xamante ni c'est des matières transversaux à savoir informatique à savoir anglais à savoir français à savoir mathématiques kon loolu mooy particularité au niveau de CFPLN parce que ce qu'on attend de vous euh, tailleur bi nga xamante ni saa bu génnee à l'issue de sa formation dina mën utiliser ce qu'on appelle les dina mën a utiliser ordinateur dina mën a wax anglais dina mën a wax français loolu mooy base loolu mooy du nouveau au niveau de CFPLM donc on va appeler monsieur Silla. Mame Maguette la section. Mame Maguette Seck c'est classé cinquième félicitations Mame ensuite on va appeler. Euh, Amina Bou Diouf Et ensuite, on va appeler Aïssatou Djoulé Diallo. Aïssatou, troisième. On va appeler Djamagé, Saras. Quatrième, c'est Amina Bidou. Et Dado Sane, Dado. Dado Sane. Dado Sane. Et pour la première, c'est Pour la première, la première. Premier de la classe. C'est Djamagaï, sous vos applaudissements. Djamagaï, premier de la classe. Djama On va appeler une personne pour la représenter. Venez-vous. Oui, il y Il faut bien. Oui. Cinquième, c'est. Sec. Après, on va appeler pour une distinction. directeur président président ana quatrième waaw na jox yëpp mu gaaw quatrième bi daa pression amina bu ma maguette venez ici vous sonnez ah ni baax après on va prendre une photo de groupe même d'accord allez ma fils d'accord qui est bien fait mérite d'être récompensé. Koudef Lurey, je suis appelé ici pour donner la distinction aux, à nos charmantes Dommage. Rokhaya Diop ñu absent dañ koy génn trio ko rappel naa trio ko rappel Fallou Diop sëñ bi da nga koy tiré Ami Sali Faye ñu absent dañ koy tiré rappel naa Marie-Louise Manga Marie-Louise da nga koy tiré rappel Fatou Ciss Fatou Fatou Ciss Mohamed Sam Mouhamed Sam côté Ndiaye côté Roxoy Diop Mohamed, vous attendez Kumba Diop nañu rapidement bu ñëw rek de donner la parole au professeur ñoom ñoo doon jàngal maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu monsieur moom mi euh, initiative lii tey ba élèves yi mën a tey taxaw am seen diplôme waaw ñun yoon nañ xale yi man xale yi maa leen yoroon ak maanaam ndaw première année macha allah ñu liggéey liggéey bu rafet ñu dem deuxième année mérité nañ seen diplôme parce que ñoom ñoo ko ñafe waaw ak euh, nu mu koy wax ak discipline parce que lépp loo am rek ca amoo discipline amoo dara waaw ñu leen ñaanal nag seen diplôme bi ngeen am yeneen diplôme yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal waaw salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum waa complexe Lébu Ndoye ak eh, invité yi fi daje yëpp maa ngi leen di nuyu euh, dama naan mention spéciale aux élèves yi nga xamante ni jàng nañu ba terminer seen deuxième année parce que c'est pas évident nga commencer rek nga terminer parce que bari woon na ñoo xamante ni plus d'une soixantaine élèves yoo xam ne démarré woon nañu daaw. mais volonté ak discipline moo tax ñii tey presque eggale bu mën a jot tey seen diplôme am na ñu ñëwul nag peut-être dañoo am contretemps moo tax mais tey euh, euh, ma ñaan tuuti aussi di intervenir ci élève bi ñu tànn sànq ci élève la plus disciplinée de l'école parce que fii am na ay élèves yu góor am ay élèves yu jigéen euh, c'est pas évident nga nekk ci école bu doon discipline rek la dinañ tànn ñu bari mais da leen raw côté social raw leen ci lu bari bari na fi élèves yoo xamante ni tey seen parent yi ñoo leen di fayal moom elle se bat chaque jour boole kook yaru ba l'ensemble ñu nekk école ba gis ko kon tey jii bu doon jàng rek la wala yaru def naa dinañ tànn ñu bari mais bari na ci loo xamante ni moom da leen koo raw yi yéen ñëpp ñu nekk fii. te fii bari na ñoo xam ne seen parents yi dañ leen di fayal tey ñu ñëw suba du ñu ñëw moom nag elle se di fayal boppam di jàng ba pare boole kook yar ba l'ensemble école bi administrative bi ñëpp remarqué ko kon defe naa ne ñu fi nekk kon defe naa ne référence la référence la pour tout le monde référence la ci ñun ñii sax en tant que professeur et administrativement ñun ñëpp référence la ci ñun nañu gën a góorgóorlu parce que c' est pas évident tey li mu am ñëpp am ko merci beaucoup. am lu ma bett keroog ci école ba bon pour une minute la rek ci élève deuxième année yi benn femme moo gaaree kat katam gaaree ci buntu école bi laajte benn élève deuxième année na ma ana madame jóob ma ne ko madame jóob professeur wal couture mu ne ma noo couture ma wal ko mu ne ma Kumba Diop la tudd ma woo Kumba Diop mu génn femme bi ne ko dama gis benn modèle. nga ñawal ko sama copine moom mooy directrice su euh, espace jeune nga ñawal ko sama benn copine dafa ca bëgg kumba jël audace enquête femme bi jëlal ko mesure jëlal ko ñaw bi wan ko modèle bi ñawal ko ko libéré ko ko lépp maa ngi koy suivre loolu déjà c'est quelque chose ci élève deuxième année bu soog génn donc loolu daf ma choqué man daf ma choqué dama ne lii amul élève bu ko ñemee dem naa ba espace jeune di vérifier ndegam ñaw bi jaar na loolu jaaru jot mais femme bi ma ñëw dafa apprécier kontaan ci loolu ne ma sérieux ma ne ko pourtant élève génn mais loolu rek war na tax waa première année ngeen xool ci moom ci loolu noonu bi merci beaucoup jërëjëf. mais macha allah sans vous aussi on ne peut pas se tenir debout saako su deful dara du taxaw yéen macha allah saako bi yéen a ciy def dara mais je avant de passer aux distinctions je tenais à féliciter les élèves de Coupe Couture deuxième année. bien sûr et restauration hôtellerie deuxième année parce que bi ñuy ñëw encore une fois volonté détermination persévérance moom moo leen fi indi parce que je dis souvent sans les moyens on organise avec les moyens on organise sans les moyens on s'organise mais j'en suis sur et certain am na yu bari yoo xamante ni bi ñuy commencé la formation amu ci woon mais macha allah a ngeen patience wane ngeen teggin. wane ngeen détermination wane ngeen li ñuy faykat mu bari ak néew bëgg naa ci jëlee xam-xam kon nous vous félicitons nous vous remercions encore une ci gëm gëm centre bi on va appeler Ndeye Koumba Ngom Ndeye Koumba Ngom Mariama Silalo Mariama Xawa Baas Awa Mariama Sylla Lo Ndeye Aïda Keita Ndeye Aïda Barakatou Diallo Aminata

mais on se donne rendez-vous d'ici. C'est les partenaires qui vont s'occuper de l'insertion. Et vous avez vu le thème de cet atelier, c'est insertion, monoligué. Mais, je vous dirai une chose. On vient de donner à Restauration Hôtellerie. Félicitations à toute la direction. Je ne reviendrai pas là-dessus. On a félicité tout le monde. Mais je féliciterai surtout les professeurs qui ne sont pas là, comme Cheikh Diop, anglais. Boubacar Diallo qui doit être en vacances à Kolda, dessin de mode. Al Hassan en mathématiques, Al Hassan Diallo. Euh, mais surtout, motion spéciale aussi, elles sont occupées, mais motion spéciale au professeur tutélaire de restauration hôtelier de tourisme. Madame, Madame, Madame Diop, Madame euh, n'est-ce pas, Ndeye Amicham, Madame Brigitte Noël Bambissak. Et félicitations donc à toute l'équipe qui a pu permettre que ceci se fasse. Mais il y a une mention spéciale. Une mention spéciale que je décernerai. Dao, je l'ai décernée à Madame Cissé, Marie-Louise. Mais cette année, je la décerne plutôt à Fatsar. parce que le et eh, eh, qu'est-ce que vous voyez rafet na am rafetul diplôme yi rafet nañ am rafetul conception bi c'est nous qui l'avons fait elle et moi rafet na am rafetul yaaññi na coofe na donc euh, maintenant il y a par contre une chose je vais vous quitter en vous disant que à l'année prochaine euh, il se peut que peut-être Macky Macky m'envoie en mission en Angleterre vous me verrez plus ici si forum bi nga may waa complexe Lébu Ndoye di leen ci ñaanal yéen lépp lu ngeen ci jublu yàlla na si yàlla jàpp kontaan nañ trop di wax na élèves yi aussi tamit ku ci ñëw taxaw nga remercier waa GIZ parce que formation bi dafa jafe yombul trop pour nga am ko jox leen defal leen forum 5 jours defal leen ay tenues yu rafet jox leen ngeen ndekki jox leen ngeen añ ba paree jox leen transport chaque élève ku ci nekk am na 5000 francs transport waa GIZ ñoo ko joxe ba pare may ñu matériel pour suñu école donc loolu mbégte la kontaante la ci àjjuma ji ñoom it aussi fu ñu jublu yàlla fi yàlla jublu merci. Euh, xanaa di leen nuyuwaat rek di wax ne toogaay bi yàgg na. boo taxawee ñoom da war a jàppise ñu xam ne kii mooy directrice école bi donc xam mën nañ comprendre parce que mënul wax di remercier aussi Moustapha moom mi yor micro central bi monsieur Ibrahima Sylla aussi tamit Ablaye Diop Bomos ñu suñu ginnaaw sama rakk di leen remercier bu baax di remercier monsieur Thion di remercier monsieur Sy di remercier Fatou Sarr moom mention spéciale kooku moom lañ moo ko soxatal teg ci loxo ba affaire yi génn lépp kii di remercier ñëpp daal kontaan nañ madame Cissé nag tey il faut mu wax parce que moom waxam yëpp xaalis la il faut mu wax di nga wax maa ngi leen nuyu di leen ziar ku ci ne ci turam ak santam di leen remercier seen teewaay bi parce que lii boobu ba léegi ñu ngi ko doon souhaité deux ans yàgg na yàgg ñu noo ñaan yàlla ba élèves yor élèves yëpp def deuxième anne am seen diplôme donc loolu dañ ciy sant yàlla. ma moo xam naa deuxième anne yi moom dañu ma gën a manqué parce que mbalak yeeg yu demee noonu mais sant yàlla rek loolu doon ñaan yàlla ngeen dugg fii ba génn am seen diplôme loolu moom moom sant nañ ci yàlla fépp loolu jublu rek yàlla dafa yàlla jublu te mu doon li gën ci yéen. Ah, di remercier waaye chaîne Z baax. mu sànni ci benn kàddu après ñu tëj ko remercier bu baax vraiment di wax ni lii euh, dafa amaat opportunité bu ibbeeku pour yéen pressement complexe Lébu Ndoye moom vraiment yéegal na niveau bi à Thiès li tax man naw ko mooy lébu du def dara te woowu wala mu ne lii laa bëgg a def lii laa bëgg a organiser lii laa bëgg a teg loo ci xalaat moo ko sama xalaat mais ñii mu dajale ñëpp ñii c'est des responsables ku ci nekk engagement la am dara lu ñàkk fayda nekkul ci ñoom mën nañ kafre mais bu liggéey jotee travail rigueur discipline lancé bi ngeen nekk góor leen ci lu ngeen ci mën ngeen def ko ñi ngi ciy liggéey nag di travailler ak yeneen entreprise yoo xam ne yii li ngeen yor wala li ngeen di jàng bu ngeen ko mokkalee bu ngeen paree ñu mën leen orienter foofu loolu on est en de faire un travail exceptionnel avec complexe Lébu ak le président Lébu Ndoye vraiment euh, élève bi nga xam ne moom Pape moom la ñu moom la ñu jox euh, distingue ko muy meilleur élève boo xam ne bi ci discipline vraiment kooku moom xaw ma inscription yi ñaata la mais inscription moom année prochaine incha allah rabbi xaw ma ñaata la nag xaw ma ko mën naa ko jël en charge voilà voilà euh, mën naa ko jël en charge xaw ma nag ñaata la mais man naa ko jël en charge incha allah rabbi dinaa euh, dinaa ko verser o comptable incha allah rabbi merci jërëjëf. bon ñu delloon di kontaan rek bon ñu jox Pape aussi tamit mu sànni ci ay waaw dañuy dañuy terminer fête bi en beauté may demander ñi jotoon chemise yi ak euh, tablier yi ngeen sol ko mu rafet ñu jël photo de famille pour immortaliser fête bi voilà mais man kenn rek laay remercier kenn kase muy Choupette mu bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax. day day yeewu fajar ñëw ku ne xam na ni période bi hivernage la tàng na. waañ métti na mu taxawu ko te xale yi vraiment ku amul tolérance léeg mu xaw a jafe parce que léeg-léeg euh, neer yi tàng léeg bon devoir yi métti léeg-léeg cours yi jafe terewul da leen di gérer toppatoo leen may ñaan vraiment ngeen tàccuwaatal ma ko bu baax a baax moom super merci beaucoup voilà bon pour bu ñuy pare rek yéen ñëpp ngeen ñëw ñu def photo de famille pour immortaliser merci photo de famille la ay souvenir la nañ def tenue correct ñu ñëw par 10 ñu ñëw ay photo de famille su mën ñëpp moo leen ñëw tamit ñu ñëw ah na ñëpp ñëw bu mu leen ñëw ñu ñëw ah.